asalaamualeykum to turbe. aladi ñaan aladi ñaan aladi ñaan ya gana diga sa tur dégg sa tur yaa ñoom biir amul jaloore bo len fi defoon ñu ne dégala lolu mom moom dégala moom man ko ñi ma biiri kañ mom dañ melu ni seex mom ma yaatal walidan indi ma ñu denka mako you know may def luma neex mm-hmm. waaw dañ dan dego dañ dan train di diw bu ni ñu war a play box ba stadium suñ match duñ ko daan caaxaanee béeri béeri di góor la yaataloon na ma trop ku baax nit ku baax nit ku yaatu daf ma daan correct torop daan correct torop am na benn jamono ma bugg a génn a dem su dem Europe mu ne ma non doo dem toogal fii si wàlli daan ngaa génnee pour dem Europe la dara génnee maay muñ a moom rek di muñ a moom rek biiri kañ moom sa digga digga digga ma demee Europe toog sax daf ma doon forcé le ma ñibbisi man maa ngi noo rek gedda na maa nga ñib maa nga dem Europe toog loolu la waaye bu mus bi mu si dafa bëggoon ma ñëw man tam ñib si yooyu yëpp daf ko daan daf ko ma tene waale daal every time bu ñëw wax rek mun na ma dangaa ñëw waaye xam nga lu yàlla tudda rek boo nekkee fële fiix ñu ngi la fiixal you know yàgguma sax sa pile foofu yàgguma faa pile lu bari ma bàyyi di liggéey waaye benn tey football yi Gambie ñu ngi xalaat ni am na lu fa des man bàyyi naa football sa ñëw di two years di playal wàll daan fii ñu dem eh, Kaolack play Mbossé ñoom Ousseynou jay day tiis sax len man bayina football de ñu ne ma déedéet way ba pare ngay play ni man len waw man fis ko daf ma wax ma jibee rek ma ñew young africans bu yagul la fi bu bayina football bu yaga man dama ñew rek playal waale daal ñu win final boobu xam nga moo tax la biri dal mu ñu wax suñ buggee wax dañ fi guddé dañoo fanaan du nekk la ñoo def du jeex moo tax ma ne leen ngeen try ngeen def programme boo xam ne pour biiri la am na ñi dañoo toog ngeen teg télé yi ne dañuy wax dañ koo programme lu nekk dañ koo def tubaab yi fële dañoo programme lu nekk dañ koo programme ñu seet naka la du ngeen nekk si leneen yéen yéen yéen journaliste yi nii dinañ leen moom ñun dañ ko ñun dañ bugg a bugg nañ Gambia dañ bugg a Gambia em nii dafa tuuti dafa tuuti trop booba forty years maa ngi noowee waaye li ma dee gis rek ma ñëwee fii li ma naan li ma fi bàyyi rek laa fee gis ñoom la xamuñ ko waaye demu leen demagu leen fenn fenn ngeen demagu loolu la ñaan nag fi mu nekk ak naxar biñ am nii nag xam nga ñu ngi leen tëraay yéen nag ñu leen dimbale ngay ñu gën a am li fi ne fi biir daal ñu am programme pour biir lañ waa ju baax la waaye yal na ko yàlla xaree àjjana suuf suuf seddal si koo am waaw moom rek lañ koo ñaanal ñu ku baax ñu ku baax ñu di ku baax la ñu di ku baax la man mënu ma koo fay mënu ma koo fay mënu ma koo fay fa yaatu woon trop fa yaatu woon trop si suñ biir di daan koto yépp ma bëggoon man ma maa dem waaye dam na ma fa gën a tuuti ma nekk xale bu ndaw ma ñoom si biir team bi biir yi daf ma jël woon lifin ko daf ma ko dénkoon maa moom la nag ñu ngi tëj si waali daan ñun ñaar dañoo wax waaw pat na la woon de pat na la woon gis naa lu réer réer ñu koy ñaanal rek di koy ñaanal rek moo fi des you know waaw ah, fii laa mën a em daal jërëjëf oncle ke yes na fi mu nekk yes uh-huh. yes asalaamualeykum koto maaleykum salaam man maa ngi tudd Keba Dayas Keba Dayas onkul onkul yaaga naa dégg sa tur yaa suma koto toogee nii ala ñaan yaaga naa dégg ak biiri amul jaloore boo leen fi defut xam nga ñun xamuñ leen tey nag ñaaka nañ ko diis Gambia yëpp a ko ñaaka mun naa ne du Gambia àdduna bi wool bi ñun dégg la ñun Gambia xamuñ biri xëy na Europe bi Denmark Norway and then Spain li nga xam ne fi ñoo civil ñoo ñu ko gën a xam tey yow lan nga ñu mën a wax tey ñi nga xam ne ñun xamuñ ko bu baax nga wax ñu si biiri tuuti. Ah, biiri nag li ma si mën a wax fi mu nekk ci bii. lu tuti rek la nekk because yaga nañ ci fi wax nañ GRTS wax nañ Star wax nañ fele wax nañ everything am nga television télévision yi Banjul la te ñu ko soga xam ñun at least ñu tam ñu sané ci tuti lañ mëna comme li ñi doon wax yépp affaire bi ri ko bëgg wax dafa da nga fanan fi waaw li nga mala mëna wax ci biir rek moy ok ñun ñoo def suñu xaleel yaay yëpp parce que ay morom lañ fi lañ judo fi lañ yaroo biri na nit ku bax la comme li nga dégg nit ñepp liñ wax biir lim xamoon ak lim am yépp xamuko ko woon sax mënu ko understand nga ah, légui ñun liñ mun a wax ci gàttal understand nga yépp dafa nekk lu ñoo répétaat rek di wax di waxaat di wax di waxaat xëy na naam bés boo xam ne toog ñun ñu wax tey daal li gën liñ man li ma nyakan a wax man ñàkk naa lu ñàkk xarit bu rëy bari athlétisme affaire yi affaire football affaire yi kii wax na affaire bi mu dem school Krabayelan bi mu wàccee understand nga ñu wax na yëpp li ñu def daal fi nekk nii man lima ma wax rek mooy pour ñaanal ko yal na yàlla oyofal suuf si koom yàlla xaare ko ajana ko man lima ma bëgg a wax pour gërëm mooy suñ ñaari jabaram yi mu fi bàyyi ak njabootam ku mel ni Ramou Sarr yal na may xoli muñ boo koy foos jabaram bu mag moo jur doomam bu mag yëpp understand nga yàlla sàmm seen njaboot yi ak ku mel ni uley moom moo demoon moom ba Sénégal sax waaw moom moo jur Yusu jur naka Tijaan ak ñooñu man daal loolu rek laa mun a wax ci gàttal loo xam ne wax naa ko alaaji wax na ko waxoon wax na ko Bekaay wax naa ñëpp wax nañ ko suñ wax affaire yi wax waxi biir yi ak demam fii billaay kon fi jóg jégal ci loolu loolu rek laa am lu ma mun a teg. léegi fi mu nekk su ñëwee ëllëg dina am ñu bëri tam ci xale yi ñu ñëw pour jàng si kaamir bi dañ tasaare affaire bi da ngeen fi fekk tam ñeneen na ñeneen na ñeneen ñeneen na ñeneen ñu bari soo buggee lim ñu bëri tam dafa nekk leneen léegi dina bàyyi suma mag ci yi nga xam ne moom moom moom moom mag biir de moo ñu mag ñu ñëpp waaye dañ ko daan fekk Togo dañ ko fekk Ghana dañ daan dem fu nekk di dem ak biir di play kii dafa bàyyi all the way di fay moto ñëw ba si ñun defaat loolu soo naa la bàyyi nga wax wax ci gàttal foofu laa mun a am dégg nga nga jox ñeneen ñi ñu wax because time is going. jërëjëf oncle jërëjëf waaw jërëjëf yow tam. thank you very much jërëjëf. nga intelligent.